gis nga yéex xale yi di foye daara ji lu ne génn na ci bés soo nomal xayri daf ma ni dafa yërëm xale yi ma ni ko lu tax mu ni fekke wu ñu la neexoon waaw ba daara di neex fekke wu ñu ko mu ni loolu la leen yërëmi ma ne ko pourtant ñoom yëguñu kenn gis nga rappeur yi ci mbedd mi mag ñi daan jiite jàkk ji yépp moom lañu woon te dañu gënoon teey waaye moom la ñu woon te it seen xaqiqa jamono lañu daan wax xam nga toll woon nañu jamono kenn xalaatul sax affaire robinet yu kenn xamul li ñu xalaatoon mooy teen ku deful teen ci sa biir kër ñu yedd ndax bëgguloo bokk li sa njaboot yem ci sa kër foog ñu dem duyi ci teenu keneen te lool nag ñoom bëgguñu ko bu ko defee rappeurs yi jóg ku ci mel ni góor gi Jibril Ñing ku ci mel ni góor gi awoon ba ci paan nga xam ni dañ koy wax waaye duñ ko wax ci wolof ci arab lañ koy wax

ما ما هو بيري داري جارينا أحلى من ما يبري دار جاركم ولا ما هو بيري داري جاركم أحلى مما يبيري داري جارينا حل لولو dañ ko وخ بچي الحاج عبد العزيز Hadj مومنتم تقول نجي ba eh, di ko appliquer ci mbaal yi ñoo nappe booba nit ñi dañ daan àbbante mbaal mais xuloo bi dafa bare parce que danga àbb mbaalu jàmbur te doo ko dellu mu nekk coow walla nga àbb ko ba noppi di ko delloo mu ni yéex na nga tooñ ko ci ni ko sa mbaam mbaal mi baaxul mu appliqué ci bayt ya sayidan fi shibaki wa sabihan fi biraki la laa kika kifa kika kika kika ka mag ñi lu ne lañu xam moo tax bu xale yi tëb daf laa reeloo waaw dafa fekk mag ñi gënoon teey nag ñoo gënoon teey wax dëgg yàlla nanguwuñu lu vulgaire waaw euh, lu ne dañ koy yiwal waaw lu ne dañ koy yiwal